asalaamaaleykum mbokk yi kon yéen yi bàyyi xel seen chaîne Touba Argentine TV ñoo ngi ak keneen ci soxna yi muy soxna Asu bokk ci jëwriñ yi nga xamante ni ñoom ñooy jëwriñu jigéen ñi nekk fii ci Touba Cordoba Argentine ñu fas yéene ko woyal lenn ci ay ay laaj waaw kon dañ ko jox kàddu gi rek mu présenté boppam soxna Asu ñu ngi lay ziar. waaw delloo ziar sëñ Sonia waaw soxna Astou xanaa mën nga ñu présenté sa bopp wax ñu fan nga dëkk ci Sénégal. waaw maa ngi tudd Astou Mbaye dëkk Kébémer. Euh, dëkk Kébémer waaw soxna Astou yow dafa mel ni xefe nga ci dëkk bi mel ni xaw nga fay def ay fan Astou mën nga ñu wax nan nga def ba dugg Argentine. waaw dëkk bi waaw weer bi ñu nekk laa fi am 5 ans. man nag jaaruma suuf jaaruma ci leen visa laa am visa laa duggee ci dëkk bi waaw. waaw soxna su dafa mel ni def nga fi benn ay fan euh, yow yaa ngi fi nekk ak sa boroom kër as ah, soxna asu nan nga dundee dundin bi maanaam fii nekk fekk sa borom kër ak sa ay sa njaboot ci dëkk bi maanaam dundin bi maanaam dund maanaam metti na wala mettiwul. waaw metti na mettiwul. ndax xam nga économie moom xam nga moom c'est mondial ni mu mel dund bi moom àdduna bépp la metti du fii rek waaw waaye ci li ñu nekk nii muy liggéey bi moom ci lañ nekk daal waaw soxna Asou mën nga ñëw fàttali tuuti rek ci sa démb bi ngay doog a ñëw Argentine. waaw bi ñuy bi may soog a ñëw moom instant boobu moom dëkk bi metti woon na bi may soog a ñëw ci dëkk bi te bariwuñu woon gaa ci dëkk bi ndax 10 11 la ñu woon ci dëkk bi bariwuñu woon ci dëkk bi mais léegi dëkk bi bari te boobu ci la xaalis bi gënoon na xaree jot mais ci la xaalis bi gënoon a baax léegi bi nga xam si xaalis bi nag neex naa jot ci la méttee ndax loo mën nga liggéey lu baree bari mu fees dell say loxo boo ko dugalee Sénégal du doon dara dëkk bi kon neexul. waaw mën nga ñëw fàttali tuuti rek euh, loo xamante ni maanaam métti na la trop bi nga accès bi nga bàyyi Sénégal bàyyi ba say mbokk bàyyi ba say waajur ñëw ci dëkk boo xamante ni xamoo ko da ñëw fekk fii sa sa borom kër euh, mën nga ñëw mën nga ñu wax tuuti rek ci ci jafe-jafe yooyu nga amoon bi ngay soog accès. non wax dëgg fa yàlla parce que jógewuma Sénégal ñëw fi man dong doon émigré nii damaa ñëw fekk sama jëkkër ñëwuma doon émigré damaa ñëw say si comme ma jóge woon Kébémer rek dem say Touba waaw damaa ñëw fekk sama jëkkër kon nag aw ma méttit gaa waaw soxna Astou waaw mbokk ñi seetaan ni ngi dégg ni ñuy bàyyi xel kon ñu fàttali leen suñ gan gi ñu amoon rek mooy soxna Astou Mbaye euh, fekk si borom këram fii ci Argentine euh, def na fi juróomi at xëy dañuy woyal laaj yi ba léegi rek waaw soxna Astou lan ngay wax euh, gouvernement bi nga xamante ni dafa seetaan doomam bi nekk fii ci biir Argentine amul consul amul dara amul ambassadeur donc lan ban appel ngay lancé ci ci gouvernement bi ah seetaan nañu de parce que Argentine moom wax dëgg yaa li fi nekk ëpp na li fi nekk ëpp na loolu imaginer li fi nekk neel neel maximum exemple neel ñaata personne mille ou mille personne ñu ngi ci dëkk bi ah ñu ni consul amuñu ko yow carte d'identité bu passeport bu jeex sax da ngay am problème renouveler ko boo sa casier judiciaire fi mu ne boo ko bëggee renouveler il faut nga dem Brésil wala nga dem fenn loolu dafa metti dañu seetaan dañu seetaan te ñun ci Sénégal lañ bokk ay doomu Sénégal lañ dañoo génn Sénégal ñëw fii daan si suñ doole kon ñun ci comment pare comme ñu koy waxee sax ci kom koomu Sénégal ñun ci lañ bokk. parce que ñun liy jëmale Sénégal kanam ñun moodu moodu yi ci lañ bokk ñun. maam gàtt na waaye ci jur gi la bokk. exactement. waaw soxna Asou kon xam naa suñu question bu mujj rek mooy eh, dañoo seetlu ne ci àdduna bi eh, lu mel ni Europe eh, soxna yi nga xamante seen borom kër daf leen di dañ leen di indi jëlee leen Sénégal indi leen ci réew mi di dem ba am as tuut bàyyi seen borom kër ndax am na fii ci dëkk bi. ah ma gisaguma ko si ah déggaguma ko fi gisaguma ko it déggaguma ko peut-être am na parce que man moom wax dëgg yàlla xaw ma fi lu bari ndax fii laayam fi ma fekk nii sama place bi ak sama kër laayam xaw ma leneen ndax dëgg fa yàlla li nga ma laaj moom mënuma la ci wax lu sow lu bari man moom maa ngi fi man ak sama jëkkër te man ak sama jëkkër jusqu'à la mort. ah. waaw ban message ngay jàllale ci soxna yi nga xam ne ñoom ñoo koy def Europe. loolu moom ndax ma seen naa góor dëggantaan njaay du def loolu am na yenn yoo xam si ku koy def ku ne man jàppewuma la de daal deretu góor mooy daw parce que ki la bàyyi ki la jëlee Sénégal bàyyi fa ay frère am bàyyi fa ay sœur am bàyyi fa ay mbokk mi ko jege loolu andi la ci wetam yow loo mënti def boo dikkee da nga ko war a jàppale ak sa fukki loxo jàppale ko jàppale ko parce que ndamam sa ndam la waroo dikk ba mu andi la nga am tuut tubaab yi fëkk la te tubaab yi moom demuñu fenn baaxuñu bëgguñu la la nga ba ko waaw soxna Asou beneen question bi ma ci bi ma ci toftal nag mooy euh, soxna Asou maanaam ni jigéen ñi sëy ak Sénégal ak ni ñuy sëy fii Argentine ndax am na différence. warut oh, am différence de. ndax am na différence ni ñu toppatoo seen borom kër yi bi ñu nekkee Sénégal ak fii bu ñu nekkee Argentine ndax toppatoo yi benn la. pour te dire sax ñun ñun ñu nekk ci ci réew mi àll bi ñun ñoo gën a sonn ñeneen Sénégal. waaw soxna Asou xam naa question bu mujj bi nag moom question bu xorom lay doon sa borom kër ban plat la gën a bëgg. maafe <laughs> waaw kon mbokk yi ñu seetaan euh, di topp seen chaîne euh, waaw loolu tamit question bu am solo la ndax euh, maanaam comme bu ngeen nekkee fii ne ci liggéey bi coono yi waa Sénégal ndax dinañ leen comprendre ci laaj bi ak ci yónnee beeg yooyu. waaw am na ñuy comprendre am na ñu dul comprendre mais yow tamit yow miy joxe dangay def li nga mën rek li nga mën daal boo ko defee boo tëddee nelaw. baax na soxna Asu cant ngërëm ñeel na la ci la jox dig daje ci yeneen jataay <laughs> bu yàq yow waaw kon mbokki yi ñu doon seetaan fii ci Touba Argentine TV ñu ngi leen di jox dig daje ci yeneen jamono ci yeneen jataay ci yeneen ci yeneen fànn euh, kon ñu def noonu ba beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullah